ngir gëna mëna jot ay vidéo xibaar abonnel ci chaîne youtube bu caaroy info tv nga daal di bëss li nga xamni mo di cloche bi ngir mëna jot yoy leen dama dafa jaar pour servir sama peuple ñu ma no Macky Sall mo soxla li mbiru mbiru état la te bu boy yu yaq dëkk bi après dañuy am nangam nangam commence ba convaincre ma quoi ni ma gis ko sax policiers yi ñu ngi ni ak ak militaire yi ben instant génn na ñu ngi ar dëkk bi kon légui nan dem ba am problème comme non démé légui nan dem mais man bima démé ba duggu lañ ma waxoon ak li ma gis bokkul ci la ne man lii mënatuma ko képp koo xamante ne si bàyyi nga si xale yi danañ la jox prime man leen man néew ma si guerre man lii du guerre parce que lii man néew ma si guerre mais lu bare bana ñun duñu ko woon wax dañu ñëw dañu yëg leen oto yi yëg si oto daal dem man ma wax dëgg yàlla quarante mille ma naan fay quarante mille chaque jour quarante mille ma naan fay bis bu jot quarante sama compte béef sama ko dugal sama compte bi du ma woon jox liquide du ma ko parce que suñu numéro dafa newoon suñu numéro chaque vingt heures ñun ñëpp dañu abandoo beew kenn du jot xaalis man wax dëgg yàlla dañu ko indil ci oto ci oto lañu ko indil guddi lañu ko indil oto oto lañu ko jox jox ñun ñëpp kenn ku ne arme mais nag du woon ñëpp ñoo yor arme comme ñun ay ancien militaire lañu ñun ñoo yor fital yi ñun ñoo ñun ñoo yor fital yi parce que man bi ma leen ne ancien militaire laa gëmal nan man ni ma bu lii jeexee mën nan laa rengagé arme nga duggaat arme parce que réew mi ngay xeexal loolu moo taxoon tax ma gënoon am pas-pasu dem ba jeex siège APR nan bayeko ci si biir siège APR nan bayeko man ñu bare bare man dana la gis télévision mais fofu la xamé plus de vidéos d'information abonnez-vous sur la chaîne YouTube de Tiaro Info TV appuyez sur la cloche pour avoir des notifications.